bismillaahi rahmaani rahim dikk leen lekk cere ak mbuum xuu ak a tàng bismillaah xuu tàng tàng tàng fa tàng de xuu Ooh. Attends. Ooh. fa tàng ba xay dal ko te man maa xiif oh my god fa tàng te ma xiif du ngeen ñëw lekk njaayeen yi cereeg mbuum mm. Chereng boom is everything. So nice and healthy. Oh my God. But it's hot, guys. Fatanga. Very hot. Fatanga mooy problème bi. suma dëkkandoo yële ne xam naa buñ may yónni nañoo ne kenn mu ne kenn loxo tubaab bi fa ñuy yóndu de jëriñoo dëggit mboq maa ngi ni dugub yaa ngi ni moom laay lekk sax dugub cere dugub laay lekk xam njëriñ te baax baykat yi fa baax jërëgeen jëf baykat yi baykat yi jërëgeen jëf si aar la du ngeen di clair dafa tàng dafa tàng waaye duma ko bare maa xiir very hot dafa tàng yéen ñi may bugg lekk yëpp a tàng ma koy ràcc maa xiif ma koy ràcc ku neex nga ne maa bugg lekk su yoon néew ji yow dooy lekk people that say me I like eating They don't eat themselves. How they are alive? Complaining about me like eating. And they are alive. How are they alive? When they don't like eating and they are alive. They are alive. how they're alive, talking. Anyway, let them talk. It's hot, that's the problem. And I'm hungry and it's hot. Oh, I hate it when I'm hungry and it's hot. Very hot and I'm hungry. when the cere is hot cere ju tàng kenn mënu koo ràcc cere ju tàng rek mook ñeleen gu kenn mënu koo ràcc mane ne guys <coughs> today when I was doing video in my language there was a man who come into the video but he said he was just using it for example he said women who suffer in their marriages that's good like in a way like they're good children and good marriage some bone I jump and tell him no. But he said he was just doing like example. But I saw one guy who live here in the UK and he's my TikTok friend. He's black, but he's not from my country. But I'm not gonna mention his name. He did a video, live video, was talking very serious. saying that women who don't want to suffer in their marriages, they're not ready for love. I'm eating cherry moon by the way. This is moringa. This is cooked with moringa and spinach. Very good and healthy. And some fish. and you use fresh peanut to cook it but don't worry the fresh peanut gonna taste good and nice anyway i have a video on how i cook it it's on my youtube channel and i'm gonna post this on my youtube channel too when i finish inshallah Amie Jobe youtube channel the name is on the bio but some men who think that the woman have to suffer for her to have a good marriage and good children I think they hate women and they shouldn't be married. Keep liking and sharing the video, guys. Because if you think you're going to make women, nowadays women, to accept that, to agree that they have to suffer in order for them to have a good marriage because you are not going to be good. You know, when the woman is suffering, that means you are not going to be good. I don't mean like the woman just suffering because sometimes life is not easy, married or not. that's not why I'm talking. Everyone knows that. Doesn't matter you're single or you're married or you're child or you're adult. Sometimes life is challenging. Everyone knows that. Thank you guys. Keep liking the I'm talking for the men that are programming us to suffer. Which is why they're talking like that. So they're getting us ready to suffer. And they so many bad saying like woman who cannot suffer in the marriage cannot have a good children xamalum bind noonu I'm eating something that is called mboum mboum mboum is very healthy and it's from Senegal and Gambia but lot of them lot of people don't know it because it's the local food very local village people food lot of people don't know to cook I know how to make the cherry and the mbum. I know even how to farm the dugub. Mm-hmm. I know how to farm it and make it into dugub. I was in Senegal for two years farming. I did two two year two years of farming in Senegal and yu farm the dugub and then you bojj the dugub yu wal you soq the dugub yu wal the dugub you mooñ the dugub you tay the dugub I know how to do that yes you should email me I don't know what you want but I do talk to people people who want healing or want certain tips or ideas on something, if I can help them, I'll help them. And people who want to buy what I'm selling, I sell the clothes that I wear in my videos, you know, like this one. Wow! It's still hot, especially when I touch that thing. You know? Today I did a I did a very long video, very good and long video that I speak English, sorry, my language. And people were coming and talking in my language. It's good, I like it. But my, country, my people, and lot of women right now, all over the world, especially African women, lot of us, our problem is that the ones that want to be in a marriage i mean our problem is that the ones that want to be in a marriage and don't want to suffer they want a healthy good healthy marriage their problem is that lot of the other women they already give up on having a healthy happy marriage They believe that they cannot have that. So now, either they're suffering or they just believe that's not that, that doesn't exist. Even if they're single, they believe that doesn't exist. This is the chili They believe that doesn't exist. So they're like, oh, marriage is for suffering. If you don't want to suffer, you don't get married. They're saying that so men can come and marry them, especially these men that will abuse them. Good luck to them. Like that man that I saw talking like that in the video. Himself, he's single. Himself, he's talking like that so he can meet a woman that will take that nonsense. Nobody's taking that nonsense. Anyway, good luck. All of these people that want to abuse people and they're expecting people to agree and take it. Good luck to them. In this DNA where are waking Mm. yéet yéet de duñ koy def si mbuum bugg lekk tax ma def ko waaye neex na maa bugg yéet people that are gonna take their nonsense with their nonsense will not stay long they just faking it they taking and if they taking forever for years their karma will haunt them they cannot be making someone cry for years and get away with it and you still have men that want people to take that nonsense like that man that i saw and he's from uk here he's black but he's either from here or brought up here or like he's from here like my children you know like he's born here and he was talking like that i lose respect for him when i hear that i'm like what the hell you are promoting women that are going through abuse he was going as far as sometimes if your man shout at you or he might even slap you or like hit you small small hitting something like that he was saying i was like what the hell small hitting <laughs> he was promoting abuse the man shouldn't do that but i don't advise women who just their man's out or the woman's out or they mistakenly abuse you as they call it and you just go i'm not saying that if the person is good the whole time and they mistakenly do something or want to do something, you can talk to them. Let them get help. They have some, I think, help to do, how thing it will need. I know, right? People that mistakenly hit you or whatever they or small hit, He said in that video that he made, the live video that his, he, he grew up, his mother was cooking and doing stuff in the house and never even asked the father or tried to make the father cook because he knows her place of a woman. So he come from a home that the woman have no voice just suffering and sort of like a lot of African women and some other women. And he's from here. He know that's not good. But he has some healing to do and he's not ready to heal. So he's going to look for a woman who is going to agree with that. Good luck. Lot of the women now, they're waking and they're not going to take nonsense. So my community have women who don't want to get married. They give up. And some of them are gold diggers who might even marry you, even though they don't want to get married. They marry you because they're gold diggers. So when they're digging, they can dig anywhere. If they have to get married, they will get married and dig. I understand that. I did that before. I married to someone that I don't love just so I can get my ass in Scotland. years ago, 17 years ago, when I was 24, because I didn't know what I know now. I'm so glad I know what I know since few years ago. It's not few years, it's long time now to be honest. It's like seven years now or If I did not know what I know, by now I'm still living like a hopeless gold digger. Trying to go with men because of money. <laughs> doesn't matter what age they are. A woman that is doing that sees her, own enemy. I know that. But you have women who really want to get married. But these other women, they make it harder than the bad men. Because the bad men, they are bad you know they are bad that's why they're doing that they need healing they're abusive they're selfish they're not honest they're not kind and loving you whatever whatever you know uh, everybody knows that but you that is normalizing their behavior you're more toxic and you're not normalizing and you shut up no you come to the camera and you try to change it into so-called sick wisdom you're like People have to learn how to suffer in their marriage and suffer and muñ and do it for Allah or just do it for whatever because it's marriage. Marriage is for suffering. I'm eating cere mbuum. That's not wisdom. That's sickness. Mm-hmm. And you and the other women that are doing that, they know it. And the man that is doing that, he knew it. He know it's called abuse. But he know that you're stupid to take it. That's why he's gonna give it a good name like you. He's gonna call you a good woman, a, good married woman. You know how to be married. He knows it's not because you know how to be married. He knows it's because you need healing to do. you don't have self love enough you don't have self confidence enough you don't have self value enough you don't have boundaries enough and your whole life is about what people will say if I go or what's gonna happen to me if I go that's what your whole life is all about they know that that's why they're gonna continue doing that to you it's the chili ak kaane sa laajte xamadi boo xam koy tontu ku feebar ni yow looy wan kenn dana ko laajte xamadi ba mel ni xaj waaye fii ngeen may fekk kuñ jaale fii la may fekk kuñ jaale rek ma block ko ñu jaale ko wax naa leen ko du leen nit te du ngeen doon nit bay robbi leen waa acca fii ngeen may fekk wait let me tell you this my community is like it's at war now you have people who are suffering in their marriages and they know it's wrong and they normalize it and they tell these other women who don't want to suffer that they don't want to get married They're not good women. That's why they're having peace. They still don't have peace. And they, say to make these other men happy, these wicked men like their husbands, to make them happy and call them good wife, good woman, good married woman. And they say, look at Ami that's why she's not married. Look at this other person, that's why they're not married. You, you're good, that's why you're married. And they know that they've been horrible. that to go through all the time and they're not going to change. They know but because it's favoring them. ah ah yow laajoo ma looy lekk rek gaamaa looy wann wann wax bu xamadi la te buccatiku ca man fa ma jógee Gàmbi wann wan na kenn du ko wax nit mais ni kuy wax ak aw nag wala dara wan na looy wan nii Sénégal fa am yenn wax yu xamadi ta sañ ta yoo xam ne Sénégal rek la xem xamoo loolu yéen ñi foog ne man maa sañ Sénégal fañ wax yu bu cëtiku ta xamadi mhm. te nit ña fa ne ñoo ko tey duñ koy wax ku ne de kuñ yeb lañ koy wax yow boo ñëwoon fekk mag mu toog danga ko ne looy wan wala nga koy laaj looy lekk walla lii lan la wala nangam wax nice like a normal nit you know waaye looy won yow wann rek ngee yow dooy wann boo wannutoon sa nangam taam bi dana taxaw di wax anyway cereeg mbuum laay lekk xam ngeen ko wax naa wax naa leen ko démb firme naa ko ku ko xamul yaa koy yëg tubaab lay làkk This person commenting, very rude. I am sure this person is Senegalese. Instead them to ask me, what are you eating? They're me, what are you swallowing? Loy one. But in my language, in Gambia, even Senegal, this loy one is a rude way, arrogant way, and disrespectful way of asking someone what you are eating. if you have maana you talk to the person and what are you eating looy lekk nii lan la wala looy lekk nii xanaa looy wan what are you swallowing it's a very rude way that they will not ask anybody the respect mm-hmm. so this idiot that asked me this she's very rude and now she's like trying to make it look good whatever the hell she's writing I don't know man may lekk ngeen bëgg a dugg lu ngeen di dugg <laughs> ku bon nga man maa bon <laughs> this person say me am very <laughs> wicked bon is wicked or bad bad or wicked whatever you call ku bon nga waaw waxal ma bonee lu ma def wax ko I love it when people say this because then they have to explain why they say that bu ma bonee lu ma def let them say why they say that ana sori du la mën a jël parce que may lekk waaye léegi tey ba pare su may lekk du may a jël nit ñi waaw waxal ma bonee lu ma def they just say me I'm bad <laughs> I'm bon <laughs> they don't say <laughs> what I did go bi xaw ma lekk xaw ma lu mu bind nii ko xam lu mu bind nii na ko wax go bi ngay lekk góose ndax góos luy góos yi walla góos man maa xam li nga bind ni ku xam lu mu bind na ko wax bambara man kay duuma bambara doo sin matalu ma doon bambara lu ci ne yow ma laa laaj loodo loodo is not important li nga doon léegi li ngay dund tey jikko ji nga xamee yow fi ne nii das was important li ne sa deret ji di daw doosin maata deret benn la koo koo dagg mu naaj ngeen a sibbutu moo tax fu ngeen tollu yéen a ngi xalaat kële lële laa kële lii ki laa ngeen a xam jot a sibbutu wala tax xamadi hmm, man du may xalaat yooyu sax kii lum do ak nanga lu ci suma yoon yow ngaa xam loo yow xamoo loo loo foog ne moom nga doon doxoo ko sa juróom-ñaari maam xamoo leen sa wàllu ndey sa wàllu baay nga xam seen juróom-ñaari maam yëpp waa kan waa fan nañ mënoo ko te boo ko xamee danañ jógee ci beneen xeet they always ask you what are you what tribe are you from What is your tribe? That's what somebody's asking me. In Africa, lot of people are very racist and rude. Mm-hmm. And they say me I'm rude. them, they're very racist and rude. And they don't like other people who are not like their tribe. Lot of them. they always do like their tribe is the better one and the other tribes are not good <laughs> doesn't matter what tribe they are you know but lot of them mm-hmm. like this tribe they're like like this that tribe they're like that that's how they talk I don't know why they even think of that and they actually treat people like that in real life try to pick what tribe to love and respect and what tribe to put down on and they're not even marry that tribe because they're that tribe or something like that mm-hmm. unless if they need something from you of course then they'll marry you especially they don't love themselves but very bad and hypocrite And when the white people are racist to you because you're black, you don't like it. What the hell? You're doing effing racist too to, people that are black like you, Hi! I finished eating. I, was trying to eat the chili, but I better stop. Hello! Greeting from Dhaka. Beautiful. I have to go, guys. So yeah, lot of people from my country and Senegal, which is also my country, by the Next person. I cannot see myself. Oh, I'm back. Assalamualaikum. Waaw, assalamualaikum. Waaw soxna de. Fay naa leen. Na def ak coono mbaa si jàmm. waaw alhamdulilah man de damay seetaan sa live yu bari quoi vraiment di la suivre. jërëjëf. waaw ngay ngay def yu am solo quoi. jërëjëf waay. waaw mais tey moom tey moom dama dama dama xa du ma ne dama mer sax mais dama xaw a dama dama la xaw a mere tuuti rek. lu xew ma waaw waaw dégloo ma xel na nga bañ ma dégloo xool quoi. dégloo ma xel nga bañ ma dégloo xool ndax ñëpp Gambien nga sénégalais la kon donc man su ma gisee benn action boo xam da nga koy def waaw waaw léegi kon su ma gisee nga def benn action boo xam ni xaw neexu ma man dama lay woo ma wax la ko muy lii nga def léegi toog di lekk nii bu doon maa yow de beneen yoon damay lekk ba pare ñoo ko toog laay loolu rek moo ma metti oh yow nga maa xamut man lii yàgg naa koo def. non non non non non dama lay suivre dama lay suivre quoi dama lay suivre lu baree baree baree baree. tey léegi yow lu loolu métti la xëy na tey waaw xëy rek laa mos a dugg sa live pour participer xam nga. ndax waaw lu tax loolu métti la. non non xam nga euh, ñu ñëpp ay africain la ñu ñëpp ay ay doomu aadama la ay julli la mais bët moo baaxul. all right bët baaxul. bët moo baaxul quoi. te léegi yow bu la bi xoolee nii ni ngay waxee. non non la mën a def dara. waaye soo lekk non non non waaye ci lekk gi quoi ci lekk gi xam nga ñun ñëpp dañoo am ay teggin dañoo am ay kii su ma sañoon dama la koy ñaan nag quoi après après yow xool lu lay neex nga koy defee su ma sañoon sooy lekk di nga lekk ba pare après ñëw teg sa live nga live quoi man loolu rek laa lay ñaan quoi musuma dugg sa live nag mais dama lay suivre moom dama lay suivre lu bare baree baree bari c'est ma sax man habitude di dugg ci live yi di wax mais tey su ma gisee loo xam ni euh, neexuma ci nit ki man dama la koy wax quoi bu dul dara sama sista xam nga Euh, war na noo mën a changente mën war na noo mën a changente quoi waxew ma ko nag pour critiquer la I love it parce que man moo dee toroxal nit ñi wax loo foog ne luñ ko war a bàyyi bot si man mhm. su doon nga maa gis may saaga ndey nga ne ma bokk moom soo ko defee waaw loolu moom soo ko defee man du la seetaan mais dama lay seetaan bu bari bari si man lekk gi dara néew si parce que ñun dañuy toog ci kër mango gi di waxtaan ñu fa ñuy xam xew yàq ay palaas di ko séddoo ñu africain Sénégal dañuy bañ lool loolu benn xeet moo corona bañ waaye du ñu waaw xam nga xam nga xam nga waaw xam nga dafa dafa doy waar daal pour comédie ak réeloo nit ñi ak comédie ak fàttali nit ñi cosaan non je sais je sais man dañuy tabaski tabaski bi paas dañuy dem Sénégal suñu toggee dañ koy teg ci diggu diggu koñ bi gars yi sama gars yi génn ñëw toog xéwalu loolu kenn bañu ko quoi mais mais daal en tout cas man gis naa loo xam ne tey suma ko gisee si doom aadama boo xam ne dama koy suivre mu neex ma loolu dam la koy wax quoi du ma du ma ko denc suma biir xool naan la noo ma no dama la koy wax après nag yow yay xool yow no koy gisee bu dee dafa dëng nag nga baal ma ak quoi. dee is ma xabaar dëng waaw waaw a wax ko bàyyi wala duma ko xalaat parce que loolu nii yàgg nañ ah, wala danaa ko xalaat parce que loolu nii yàgg nañ wax te lifinu te bàyyiwuma ko because duma ko bàyyi because it's not bad dëgg la dëgg la not lu bon luy war a tax ma bàyyi ko rek mm-hmm. mooy li ngay wax na naan ay bët baaxul su fekkoon man dama gëm ne su ma nekkee di mm-hmm. seetaan nit ñi mën nañ maa dofloo wala ñu ray ma wala nangam aha mm-hmm. waaye ah. man gëw ma ne nit ñi mun nañ maa defloo seetaan or not ah, man lekk or not waaw goo ma ne nag suma communauté bi nit ñi dañ may dof loola dañ may ray ragal looy ragalee non non non non ragalunu dee ragal xoolal xoolal non bu dee dee la ragalunu ko ragalunu dee ragalunu dara mais euh, dafa xaw ma na laal ko mën a expliquer ndax ñu ñëpp dañuy dañuy dañuy faatu kooku moom day day am quoi ñu ñëpp dañuy faatu ñu ñëpp dañuy dee kooku werantewunu ko mais dafa am loo xam ne xam nga tey soo koy def sa soo koy def sa euh, nga koy def man ma gis ko man ma wax la ko mu génn ci man moo gën ma jël di la ko di la di du ma sa dam lay suivre moom billahi barke Cheikhul Khadim damay suivre sa laaj yi ngay def yëpp xëy na tey laa mës a dugg ci kii bi naan ma maa ngi passé eh, bon xam naa ni après nag yow yaa xool quoi nan nga koy defee wala même bu dee da ngay xaw a wengalu tuuti sax nëbbu vidéo bi nëbbu déedéet yow kay yow is yow léegi ma waaye bëggoo may lekk soo gisee may yow nga weengalu nga daw. waaye man non non mais bu dee li ngay wax non non non non non lekk gi duma ko bàyyi la ak kaf ak reer ak waxtaan saan surtout su may lu baax ma ne la naa nga ba baas yaram naa nga. xam nga déggoo ma la déggoo li ma la man dama lay suivre dama lay suivre. Mm-hmm. bokk nga ci ñi ëpp ñi may suivre xëy na c'est la première fois ma passé mais dala nga bokk ñu bari ci ñëpp ñi may suivre ndax débat yi ngay teg musuma la gis nga def yëfu ku matadi. comme ni ko ñenn ñi di defee barke borom Touba mosuma laa gis nga def yëfu ku matadi moo tax damay am envie di say live toujours quoi. Mhm. mais xëy na lii nag lii nag bon dafa nekk loo xam ne lu ma la war a wax la moo tax ma wax la ko bu dee dafa. non def dara ñun buñ bokkoon dee baay tam nga wax. waaw waaw man sama vidéo yi gis may waxee. bi ko damay waxee comme ni maa yéen a bokk ndee baay. moo tax ma dee je lu ne ci je sais waaw soo Espagne lu ma wax nii waaye luy problème bi allo rakk ci jàmbur luy problème bi mooy man dama gis ne. Uh-huh. lek gi de su ma ko doon ba <laughs> xanaa mm. man ma am jëkkër joo xam ne fa def boppam nit te ma bugg ko torop mm-hmm. tam xaaye ma ko ah waaw kon yàlla nit waaw xanaa waaw yàlla na yàlla jàppale ci loolu ko waaye man ma tëb ren ni nit ñi seetaan mm-hmm. yundu rek ne ma baxal parce que what happen is <laughs> it's not like respect ma kon du man rek man maa la ko wax kon kon du man rek man maa la ko wax déedéet déedéet xam na nit ñi ah. ñu ma ko dee wax yi di dugg si vidéo yi ko wax ay waaw waaw waaw vraiment dan la dan la ah man dama laa naw moom barke borom Touba dama la naw bala ñeneen ñi dañuy wax ne naa bàyyi lekkee loxo léegi yow soo ma nawee non non non lekkee loxo moom xoolal man xoolal fii jabar loxo la ñuy dóor ba mu saf saf damay teg fi mu ñëw mu toog nu lekk ba mu saf man dimanche bi maa fekkaan ma dugg naa ba pare maa fekk kànja laay toog suba mais dañuy damay teg fi man ak sama doom dañuy lekke loxo loolu bañu nu ko. waa léegi. yow ngaa foog ne man su ma continuer di ko def bët yi fañ may rey yow yaa ko yaa ma ko rek ci ngelaw. waaw non non du bët yi dañ mais mais bët a daal xam nga daal comme ni ko gars yi di yow yaa gën xam fi ma lay waxee xoolal ñun ay africain ak africain xoolal mën nga ko def wengalul rek wengalul xam nga nëbb cere ji nëbb waaye su ma sañoon daal moom ah yaay booy da ngay waaw boobu moom da koy da nga xaw a kii daal. vraiment da ngay moom xam nga luy problème waaw ñëwul. si ah. man ñun bët baaxut bii. fañ koy wax ah. rek waaye gëmeewuñ ko noonu. xam nga tax ma wax la ko. Ah. ñun fañ gëm sëriñ. te ñun xool fañ xoolu xan fañ xoolu xadi fañ xoolu xadi xante. li tax ñu xoolu mm-hmm. xadi xante mooy métit wiñ dund. Mm-hmm. moo tax kuñ gis foog ne fa ñuy métital. Mm-hmm. loolu mooy dëgg bi su doon bëri bët sax. waaw dañuy ragal quoi dañuy ragal. waaw. moo tax ñu ñuy ragal bët in a way waaye soo ko ragal ragaluñ bët parce que ñun kuy dem xew taxawaa ma xala la mm. dara su ma la waxee boo bàyyi xew xam ne ñun ragaluñ bët ñun kuy dem xew waaw ngay bugg a solu ba dàq borom xew la waaw loolu am na ngay bugg a leb mbala nga ñaan pour soo demee nga xam maye waaw ana bët ya su boobaa surtout buñ lay film ak ak ngay nekk kanam mais mais ba léegi ñaari taxawaa ma rek ñun ragaluñ bët ñun uh-huh. ni ñuy wan ñun nit ku ñuul ni ñuy wanexoo ku ragal bët du mel noonu mm-hmm. ñun fañ rek xóolu xali nit ñi foog ne kuñ gis rek foog nañ ne ku ko fa ñuy rey mbala mu dof loo ñu loolu mooy suñ problème waaye du ragal bët mm-hmm. waaw xamoo loolu waaw seetlu xóolu waaw waaw loolu li nga wax moom li nga ma wax moom am na quoi ndax dañuy dem ci xew yi dañuy solo ba dàq borom xew bi yooyu yëpp dëgg la mais lii lii ñaari ñaari ñaari choses yu différente la ñaari choses yu différente bii lekk la moom laa la wax li tax ñun ñu foog ne lekk ku la gis ku ne fa lay rey te ah. ñun ñu man di lekk sax taxawal waxal la te ñun di seen nit ñi ñun ñu man di lekk ci kermango seen jàmbur ne ko kaay xañ te xamuñ jàmbur ko tax jinne la malaaka taxawal ma waxal la rek <laughs> man ngaa ji jàmbur nga ne ko kaay xañ mu ñëw raxas loxoom bokk ak yow di seen bool loolu loolu sama sa sama yaay da koy def dañuy toog ay loolu moo gën a raglu jàmbur ja mën naa nekk jinne tusbaari yàlla nga gis jàmbur buy dem ñun gambi noonu lañ magee suma yaay ker mangoy parce que ñun kër guñ dëkkoon kuy romb dañ lay séen ker mangoy da ngay toog di xay suma yaay fay gis kuy romb góor la wala jigéen mu xool ñu suma yaay ba koy ne kaay xañ mu kooku moom mën naa ne suñu yaay yëpp la suñu yaay sama yaay noonu lay def sa yaay noonu lay def moom mënunoo nit waaw nit kuy romb te woowu nu la añ woowu nu la ngay romb sax xam nga nu ñëw woo la kaay wala nga ñëw dugg ci kër gi ñu raxasul ñëwal añ yow da ngay dem ba habitude boobu yow da nga koy am quoi waaw ñun da ngay xew soo xamee xew ni ñi dañuy togg mbana gi si biti dëmm yeeg noxoor yëpp di gis mbana gi di ko suukar ko di ko yëngat su mbana ga paree di def ko ay palaat dëmm yeeg noxoor yëpp ñoo bokk dëmm bu mu neex mu soppaliku ami ami jóg mu solu ba rafet ñoo bokkal ñoo <laughs> ci xew nga waaw doo ko xàmmee moom ñun foogoo ñun su ka wuyee ah. dëgg des never mind lekk mi lekk mi du dara su ma neexee ma uh-huh. ba ko is nothing jóg sa say waaye ma laa woon ne ñun luy suñ problème is not about ni ñi fañ ñuy lekk fañ wóolu hmm. xadi xante waaw dina wóolu wóolu te quoi. waaw waaye ni ñuy defee suñ dund niñ koy defee ku fa ku ragal bët duy defee noonu. dëgg la mais du mais du ñëpp nag di ragal bët at the same time fay wóolu mhm. xalixante in général. xam nga xam nga ñi lay xool ñëpp ñi lay xool ñëpp seen xel xam nga du problème bët mais gars yi xel bi wax quoi xel bi ñi lay ñi lay xool ñëpp ñi ngay kii ñoom ñëpp seen dem ci ta xam nga am na ñoo xam ne ci côté boobu am na ñoo xam ne peut-être amuñu ko. am na ñoo xam ne amuñu ko seen xel mi ngi nekk ci lii ngay lekk te amuñu ko amuñu fu ñu ko jëlee. ok ah. man mën naa koo bàyyi taxawal waxala waaye su fekkoon man kenn maay defloo si vidéo bi. si si ah. vidéo yi léegi. Ah. kon su ma ko baxee kon danaa dimbale nit ñi waaye xa vidéo yi léegi si àddina si nit ñi fiy poos lekk. lekk yu tax yow yow la ñuy poos ganaar yuñ lakk faraay ko defar ko rafet. yow wuy ma wuy man peeti cin yi may gis man Ami Jóob sax manuma koo toog ba ma fayoon junni sax lu ma war a su ma ko toggee du mel noonu man xam naa loolu benn cin yooyu la nit ñi di record nag suñ ko lekkutit bañ koy record togg ma record ba mu pare bañ yekk record yëpp yekkal naa ko diw ñëw leen lekk may naa ci diw demal wax ñooñu ñëpp ñu bako ndax man ma ko bayee maa ci gën a tuuti ñooñu seen vidéo yaa raw man ñooñu ñooñu peut être su ma seetaanoon xëy na seen vidéo am point mais yow mi nga xam ne man du ma yow dama lay siiw moom laa la yow ah. ana sa xel ba ci ne ci suma lekk gi kon. ñëw jox ma man mën naa ko defar suma ko xoolal mën naa gis yow nga kii <laughs> dugal dugal samay nga xool dugal dugal sama statut nga xool. waaw léegi kon yow taxoo taxoo ngay wax kon àddina seetaan ngay wax man it àddina seetaan may wax. <laughs> waaw d'accord Diop a <laughs> yow yow Diop yow yow loo wax noonu la. dee is not like noo wax noonu la billahi man mën naa koo ba waaye man laa woon de su ma ko lekk yi ñuy poos maa ci gën a tuuti le nit bu ma dàq togg te dàq maa lekk yu neex ak palaat yu rëy ñoo koy poos non non non man damay togg damay togg su ma man man su ma toggee ba soo demee nga xool samay fii màggali Tuuba sax boo xamee nit ñëpp ñuy poos ganaar yu rëy yaag luppi xar yu rëy yi ma di ko gis man Ami na naan xaw waroon na ne ca màggal ga wuy ma soo a màggal ga ni di nga màggal gaay def loolu wax ko waa màggal ga ah damay màggali dafa man man su man su ma demee màggal su ma demee màggal ca ca ca fa gars yi di toggee foofu laay nekk man yooyu ma neex quoi soo duggee sama ah, sa ñuy film lekk yi moo la neex non soo xoolal dugal dugal samay samay vidéo nga xool man damay chaque dimanche damay togg sama kër su ma toggee mën naa ko togg ba pare filmer ko mais duma ma wane may lekk non da nga may déglu rek da nga may déglu du ma dinaa togg dugal ko ah mais du ma fu may lekkee du fu may dugal après nga samay vidéo man damay toog dugal lekk dugal lekk la loolu moo mais mais bala ma dugal wuyu ma man li may xam nii ñu bëri fa ñuy wax ne fa salte ma leen di fàttali seen maam yu noo wala seen gars fa salte duñ koy bugg a lekk sax dama suma lekk duy rafet yu ci bëri yow lekk gi nga defar ba mu rafet nga posté ko booba la xel nit ñi ne ah yow kay non non yow xoolal man damay man damay xoolal damay wuy ma man bala ma ngaa posté damay lekk waaw waaw danga may déglu nag danga may déglu man damay lekk wa man damay su ma damay lekk ba pare doog a posté <laughs> man noonu laay waaw damay togg ba pare lekk ba pare doog a posté man doo si mata borom xele man ca ba tey ko wannee ba <laughs> bo boobu fekk na mu rees bo bo brode man boo xoolal si sa man boobu fekk na ma lekk ba pare mu doog a rees ba ba mu rees ba pare ma doog a posté man noonu lay yow aha kon yow xelam nit ka bu ca nee fekk lekk nga ko ba pare sa yoon ñëw yow dawoo xeli nit kon yow dawoo xeli wala wala su ma ko filmé deux jours après ma doog ko dugal. fekk fekk reer naa ci añ suur tur waa suur weeru koor waa ngi ñëw indil yi kon. yow nit ña kon xelam dana ca ne. what the hell doo sin mata nit ka xamul ndax lekk nga ko pare bu ko xamee. non non ah, mais su ko xamul man man xam xamul man xam naa lek lekk naa ko ba pare. waaw waaye ba te xelam ba cay ne. waaw su mais su ma woowee su ma woowee ne ma bul ko dugalati man dootuma ko dugal su ma nit woowee ne ma bul dugalati vidéo yi man dootuma ko dugal. man doo dooma tollu fële naan de di ma jaay baax naa ne su ma woowee man tànku ma ma gannaaw nga tollu fële naan ma defal nii rek ma naan la yéex. non non non non non si sa si sa non du ko xoolal xoolal non bu ñu yóbbu débat bi bu ñu yóbbu débat bi foofu quoi bu ñu yóbbu ay ah, débat bi ni koy waxee naa suma borom woowee ne bu ko dugalati yow acca nekkal foofu loo def ni ñu wala ne bu ko def nga ba kon nag ba ko man maa ngi lay wax fi ne ne ba ko waaw kon bàyyi naa ko non kon bàyyi naa ko tokk ba te su ma gisee lekk nga suma xel dana ci ne ba ko non léegi léegi nee nga ma bàyyi ko bàyyi naa ko bàyyi naa ko yow ku baax nga te yaru jërëjëf non bàyyi naa ko bàyyi naa ko man kay fi ne ma lay waaw waaw ñu ngi lay ñi waaw ñu ngi lay jaajëfalaat lu baree bari ah ñu ngi lay jaajëfalaat lu baree bari di la ñaanal jàmm nag te di ko sàkku ci yow waaw vraiment dañ lay suivre waaw dañ lay suivre lu bari billaahi wallaahi dañ lay suivre yu bari dañuy ndax dañuy gis euh, soo heure boo toogee di wax rek ah peut-être parfois tàngaay bi dina la xaw a jàpp mais euh, lépp li ngay wax rek da nga koy wax te yàlla tax quoi te loolu moo am solo te gisuñu la mukk gisu musumaa gis sa benn vidéo boo boo defee yëfu ñàkk fayda kooku moom dama la koy wax quoi moo tax mu am ma am sawarte di la déglu man damay damay dugg ci live bi xëy na du ma dugg ci live bi kii mais parfois dinaa dugg seetaan ay ñoo xam dañuy def débat yu neex ñu toog déglu leen ndax ñu ñëpp ñu ñëpp sa soo laajfee mu neex man mën naa cee jëlee njëriñ mm. mais am na nu muy salté am na nu muy salté man du ma ko bëgg a waaw maanaam bu may lekkee loxo lekk yi may lekk oh, waaye xoolal xoolal xoolal yow léegi léegi yow lekkee loxo léegi lekkee loxo ma lay seetaan bii débat léegi wax ji léegi foo lekkatee loxo man ma dugg ci biir sax commentaire wax ji jeex nag <laughs> man lekk gi ma koy def su may lekk di kultu di waxtaan comme Afrique nit ñi ni ñu def di xañ di waxtaan you know ci ker mango yi noonu laay uh-huh. def yow bi boo boo may xaayee loolu mën naa koo ba de waaye loolu su ma ko ba it ah. loolu du tax lool loolu it's like I don't ko because man si man community bi. xoolal xoolal war euh. yàlla ne wax yu bëri maa ngi koy moytu suma vidéo yi ak jëfin yu bëri. non non non non je sais waaye ba contrôle fu mu toll rek naan ma baaxal li baaxal gis yow ngay laaj ak ay nit yoo xam ne ñoom dañuy def vidéo man yow damay gis nga leen di corriger sax quoi damay gis nga leen di corriger dama moo tax la dama lay suivre quoi. Hmm. su comme ñi nga xam dañuy fe di wane sen seen seen ci awra yeeg yooyu yenn saa yi nga laay fan ceeg ñoom yow da nga leen di génn ci yooyu da nga leen ciy jéem a génn mais ku nekk ak sa ku nekk ak sa vie la ku nekk ak sa vie la ku nekk yow yaa xam euh, ni ngay tojee sa bopp mais mm-hmm. euh, parfois man am na Gambien yu bari sax dama leen di seetaan mais parfois da nga leen di gis bon ni ñuy xaw a defee nu xaw a kii mais du ma ci mën a dugg di commentaire ndax bu te comme tey mën nga dugg di commentaire affaire kenn mu saaga la su boobaa dafay metti am na benn femme bu nekk waaw waaw waaw waaw am na benn femme bu nekk foog naa luy problème bi mooy uh-huh. dafa am Gambien yu seen yeneen vidéo yi fay ñàkk jom te te nekk vidéo waaw waaw waaw tegg na wu def tamit non na sénégalais ma du gambien yi kese non du ga du gambien yi ak sénégalais seen bopp waaw ndax nit waaye foog naa looloo tax nag yem ma parce que dañ gis man may kafre you know ak a wax lu lu ma dund pour ni ñi ba buñ ko buñ ci jaar nangam nangam waaye bi ko ñu ngi gis yeneen gambien yi def vidéo yu bon yu bëri uh-huh. moo tax ñu yab gambien yi yëpp non non du gambien yi kese xoolal ak ak sénégalais yi sax laa wax ak sunu mbokk sénégalais yi sax laa wax Mm. xam nga xam nga surtout jigéen dafa am yoo xam image yoo xam ne rafetul ci jigéen ndax yow calculer suba da ngay da nga fas yéene am njaboot te vidéo yi vidéo yi na xam ne du denc ci àdduna mm-hmm. na xam yaay booy ne vidéo yi denc suba da sa njaboot suba nu gis sama yaay lii la fi nekke woon da ngay dem mag muy góor di mm-hmm. jigéen muy muy man muy man di yow di keneen moo tax heure bu mm-hmm. ñuy dugal ay vidéo ci biir statut yi wala ñuy def loo xam nanu calculer ne suba suñu njaboot dina màgg I know vidéo yu waaw waaw nan nanu xalaat ne mën nanoo non non billahi wallahi nanu xalaat ne suba suba danoo opté am jabar danoo am nanu jabar danoo opté suñuy doom dañuy màgg mais vidéo yi du denc àdduna ñun suba ñu naan non non mais parfois da ngay découragé du du Gambien yi kese ak sénégalais yi ak sénégalais xoolal mm. xoolal xool defal defal image li ma la gul xoolal tubaab yi tubaab yi ñi ci ëpp ci ñoom dina toog dinañ live dinañ débat mais affaire du ñàkk fayda yooyu duñ ko def mais ñun africains yi rek ñun ñooy génn xam nga summi suñuy taat fii def def yëfu ñàkk fayda yoo xam ne ku la gis après da lay yàpp te loolu rafetul. loolu rafetul ñun ay ay bu bu dul ay jullitin ay catholique lañu am na loo xam ne suñu diine moo nu ko mayul nit mm-hmm. même bu dul lool ay africain lañu danoo fier ci li doon danoo fier ci africain bi ñu doon kon donc suñuy cër suñuy cër nan koy nëbb suñuy cër nan koy sàmm ndax njaboot gi moo tax quoi mm-hmm. man foofu laay xoolee man njaboot gi suba sax njaboot laay xoolaat bu dee bu fekkee ne cër yenn wax yi tamit fay yàq ko salaamaaleykum maaleykum salaam waa jëwrin yàlla la yàlla fay. jaajëf jaajëf amin amin amin amin amin yàlla la yàlla fay bu wér a wér da ngaa nekk ci thème bu am solo grave. amin amin amin amin amin ñun léegi doo xam ban jamono lañ ne. doo xam ban réew lañ ne doo xam ban éducation mooy dox. billahi billahi billahi billahi ah. billahi non lu leer nga wax. am na ci am na ci benn waay joo xam seen moom laa gën a sipsone moom daa mel ni moom jigéen juru ko moom kooku moo gën a yées ci góor ñi. non non na ci léegi ñun ban réew lañ ñi ak ñun ban ban jamono lañ ñeman laa bëgg a xam man. déedéet non jox sa doom sax. ban seen jikko yi non moo yàqu jikko yi seen ñoo yàqu. mais si sa si sa si sa ñun ñëpp dañoo stressé wu da xoolal ñëpp ay dañoo stress ñu moonu jàpp. ami li ngay wax nangu ma ko de. man man man mi nanguma ñun ñëpp stress moo ñu jàpp. nanguma li ngay wax stress bi mais suñu ñëwee nanu ànd ak nanu ànd ak suñu xel. ami nanu ànd ak suñu xel yaay boy ñaata vie nga am instant bii nii ñi lay seetaan booy xool ay 63 la man am na live yoo xam su ma fa lañ fay wax ay 300 et quelque man doo xam ban réew te lañ fay wax du farata du sunna du lenn doo xam ban façon wax la ñuy wax. yow mi nga xam da wax dëgg yow mi nga xam da ngay teg nit ñi ci yoon kenn du la déglu. non man kay doo xam ban réew lañ nekk. soo demee ci yeneen laaj fu ñuy defee yëfu taatu neen xoolal góor ñaa ah mais ba ban sens la am. mais kay société bi man société yoonu. yow li nga may dolli li nga may dolli wala. naan fii lañ koy dugalee ak fële lañ koy génnee. mais mais mais am na am na yoo xam ne am na yoo xam ne yaay booy. ñu ne fañ xamee jëkkër man de su ma xamee jëkkër ba pare di waxee waxi laalante noonu su ma bi ma amul jëkkër nii ndegam si laa ko dul def fi mu ne nii man amee wu ma jëkkër. taxawal waxal la te xamee fu ma bugg a takk te di you know like ba nga xam jege naa ak jege goo dana nekk naan ma wala borom naan ma ami bul wax wala bul wax laa na su ko defoon tamit góor ñi ma bëggoon ñi may a wax nag to be waaye parce que dañ ma dee seetaan te dañ dee gis ne xëy na defuma ko moo tax waaye man par exemple tey su ma wax yenn wax yi te xam góor goo xam ne fa ma bugg a takk te xaayewut ma ko danaa xam ne kii bëggul ma te manut maa xame surtout góor gu ma takk ba pare seetaan ma ma xeexoo ci gannaawam ñëw taxaw ci caméra naan fii la ñuy duggalee fële la ñuy demee fële la ñuy nangamee def topic boobu ba oh pare jëkkër ja waxul ma dara xaayewut ma wala kon kooka manu manu moom non non lekk gi ni fekk suma jëkkër nga ma lànk gis nga grand bi uh-huh. waaw dañ ne kullu xaq wala kullu xaq wala kaana muran dëgg la fii ñu nekk ne donte sax ami bu fi nekkuloon waaye ñu waxal yàlla gis nga moom mi roy kaay ci TikTok ginnaaw mooy moom laa ko wax léegi ah ay waxam nag ay waxam nag dafa dafa dafa dafa xoromu ci gis-gis waaye boo ci waaw gis nga ay waxam dafa xoromu ci gis-gis waaye gis nga bóor ga ba ca biir <laughs> di nga xam ne lii la la ami bëgg a wax non non man dama koy déggoo li ma wax nekk ni di yàlla rek a fi ne musumaa jox dërëm musumaa defal dara waaye nag man ci TikTok bi laa ko xamee live am c'est la première fois tey laaj dugg ci bëccëg nii. même man a dama ko man dama lay suivre dama lay suivre quoi. barki Seydina Mohamed ay moromu jeegam ay moromu jeegam ñoo nekk ci live fii nii doo comprendre ban façon wax la ñuy wax. barki Seydina Mohamed léegi loolu ban avantage la am ak loolu nan lay du loolu nan lay doxalee société na yenn jigéen yoo xam ne dañuy ñëw live def seen làmmiñ ñu comme kuy lifin góor subhanallah <laughs> seen làmmiñ ñu di ko génnee di ko warale seen oh, gémmiñ gi di oh, parku oh, suuli noonu ah yéeme rek moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay cë <laughs> man daal si sa li ma lay wax mooy loolu laa la fi nga teg fi nga teg sa tànk daal foofu la quoi fi nga teg sa tànk foofu la waaw nañ ko dolee nañ ko dolee nañ ko nañ ko nañ ko dolee nañ ko dolee encourage rek waaw waaw fi nga teg sa tànk foofu ndax cat baaxut cat day sembal bu rëy bu rëy cat moom rëyut semmal moom moom laa ko wax quoi mais ak loo mën xoolal. waaw dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal rek ci àdduna ba nga changé. fii nga teg na ci loo xam ne Serigne Touba fii la. ndax xoolal ëllëg ah. ëllëg. da ngay da ni da war a am njaboot suba. Mhm. bu dara dara jaral ah ga génn say hmm. cët yi wala di di wax waxu ñàkk fay ëllëg lép lépp day répercuté waat sa njaboot ah. macha allah man ñi sax loolu laa leen yéene man njabooti nit ñi sax lu ñu def ko moo tax leen wax ñu gëm seen bopp mm-hmm. lu ma xénewul Fatou Adi wala Lamine su ma su ma doom ju mag ji du ma ko xéne gune yi nga xale yi noonu gune yi ndaw yi may seetaan nii dama ko dee wax community waaye community bi luy problème bi mooy mm-hmm. <clears throat> yow soo leen waxee loo moo baax si ñoom xam nañ ko de waaye bi ko pare wuñ koo baax ba mm-hmm. ñuy nekk di la ñaawal di ko gën a def nag far ne yow la ñuy ñaawal mais mais ton devoir tu l'as fait mais sa devoir def nga seen bopp la ñuy yàq ak gis nga am na am na am na beneen jigéen bu mel ne comme Amini euh, Dakar fii la nekk mm. dama koy suivre moom tamit lu bari day def oh. live bu defee live booy booy naan ko gel booy dañ laa bëgg mooy gel mooy jigéen boobu rek tamit faral di sol euh, kii bi quoi euh, kii bi ah, ah kii bi ensemble bi ensemble bi ànd ak ànd fijo bi benn jigéen la ni jigéen bu am ah et puis booy di ko di ko di moo man du ma seen moroom mais jigéen bu am caractère non non mais nit ki foog nga am kaf gi ak réegi na waaye gis nga ku ci ñàkk fayda booy sa kaw bopp la ñuy yéeg. non sa kaw. waaw dañoo gaaw a dañoo gaaw a dépassé. non mais ay xale dëgg la kanta nag mën nga cee dugg gën a stress kafre loolu bokkut ak dépassé. nit mën ami ami grand ñi ngi nii di. Ah? man ak yow ñi ngi génn man ak yow ñi ngi nii wallahi la azim wallahi la azim waxu fi sol mhm. sol paal léegi sol taxaw ma laaj kii waaw moo tudd sol ndax suley waaw suley suley waaw ok sorry suley xaaral ma laaj kii ne ko tu fekkee ne moom nu tu xaadim waaw xaadim taxaw ma laaj ma mhm. laaj la sol mu ne naa ba lekk mi su xaadim waxee ne ma ba <coughs> man mën naa xam mhm. naa xam laa wax de léegi xaadim ah. yow loo ko di lekk mi da lekk mi lekk mi wa kii di xaaya ne bu ma ne di lekk ci ci ci mi sama sama sama jigéen nga de moom. <laughs> waaw. te man moom xam naa ne maa la bëggal sama man nag bëgg ma la ay cadre Nobel ak yooyu non non non bëgga dama te yàlla rek. te bu doon sama gara bu doon sama mag bu jigéen it ni ma ni ni may waxee yow laa ko waxee ak ngi lay ñaan ngir jëm yàlla ngir sa waajur wi la jur nga bàyyi ko. Ah, xam nga dafa am bë dafa am bër yu bon. <laughs> kantaan nag ba nga juddoo sa yaay sang na la defal la lam war a defal lépp maanaam aar la ni doomu ni ni nday war a aare doomu aare la ko. dëgg la. waaye daa am bëri bon am na bëri lu ñu gis mu yàqu. lu ñu gis mu yàqu quoi. surtout ma internet bi nga nekk nit kantaan nag moom mën nga jël téléphone di nekkee fële di lekk di waxaale di waxtaan loolu moom bëgg waaye jëmi lekk bi moom. ngay tibri sax moom man sama jigéen nga sama xarit nga maa la bëggal sama bopp ngir jëmi yàlla ak yonent bi. dëgg la. <laughs> dama la ko ñaan rek nekkul nag lu ma la ay ay far force da nga koy bàyyi ndaxte. non non non aw ma ci yow waaw aw ma ci ñaan la quoi. c'est que bët moo doy waar ni ko mm. grand di waxee sa yaay la defal na lépp mais bët moo doy waar. jeex na mm. si si mënul ñàkk mënul ñàkk. mënul ñàkk dafa bokk ñun dafa bokk ci ñun. soo gisee ma wax la ñun ñëpp ay julli lañ te julli dañ ne moroom julli tam mooy mbokkam. Mm-hmm. te réew mi ñu toll dafa dafa dafa changé léegi am na ci ñoo xam se neex nga leen mm-hmm. lool waaye am na ñoo xam se nii soof nga leen lool. Mm-hmm. xam nga loolu am na. waaw. comme que Mouhamadou Rasulullahi moo ko amoon ak Serigne Touba ak El Hadj Malick loolu mënul ñàkk noonu mënut a ñàkk. déedéet dinaa ko man ragal ma boppam waaw non man nag maa la ko ragalloo te nga bàyyi xel ne adduna mooy doxee noonu adduna moo dox quoi ma ko man man moom dama la ñaan waaw dama merci beaucoup xam nga ñaan lu tax xam nga lu tax ma ñaan la ko merci c'est fois yaakaar naa sa live maa ngi doog tey ci bëccëg ak tey ji encore mu nekk deuxième fois <coughs> dëgg la ma jàpp ne même dara rek am na loo xam ne nii kenn ku ne mën nga ko ñaan sa morom quoi dëgg la dëgg la. ndax tey jii adduna day dox mën naa dugal benn vidéo bo xam se ni dama ci jug nga woo ne eh, jël ma ne ma xaadi gis benn vidéo su ma soxee nga génne ko pourtant wallahi xaalis dama koy génne lu waral loolu. mooy damaa gëm da nga am ci man benn cër boo xam se ni. waaw ñu bari ñu ngi ko romb jàll te waxuñu ma dara mais yow mi bëgg yaa ma wax ma loolu. waaw. ñun nag boobu boobu cër lañ jot lañ yaakaar ne am nañ ko ci yow moo tax ñu lay ñaan lillahi wa soli boo ko mënee bàyyi de mooy li gën dugg ci laay xam dama lay suivre rek musuma dugg sa tey laa mos a dugg sa laay. xam nga tax di ko bari xam nga tax ma di ko bari uh-huh. mm-hmm. du du du wut mbiri xaadim de xaadim bu ñëwutoon it. Mm. su ma continuer mm-hmm. wax ak wax ak wax ak Souley ba pare. Uh-huh. Mm-hmm. Souley mën naa tax ma ba ko parce que man léegi rek su ma ba dara. alhamdulilah nga may won loob ak respect comme moom bi ma waxee ma ne ko loolu duma ko ba nangam nangam di weranteeg moom ba tey mu ngi continuer waaw loolu non non loolu mbalag la rek waaye waaye sax mën nga ko bàyyi loolu mbalag la moom ngi continuer mais ni dara xew loolu moo tax ma respect loolu moo tax ma xam ne kii war naa jar ma ma ko dëgg la wallaay wallaay ñun soo gisee yéen bu ñuy xaayee ni dara nit ka du koy ba fañ koy wax ne ko hmm. nangam bi boo ko baxut ma bal dëgg la non mais su ma ko defee borom fay foog ne bëggoo ko waaw non su ma ko defee sama cër sama cër amee ngi nii amee wóor na yàlla man man dama lay bëggee lu bari yaay booy barke borom Tuubaa gis nga man dama lay bëggee lu ah, bari. waaw sama mag la ami ami la tudd moom tamit daf lay bëggee lu bari. allo Toma. waaw gis nga loolu bari nga ñu la sopp moom. ah Saalum Saalum man ma bokk Saalum Saalum laa. Ah, ma bokk Saalum Saalum laa dama lay bëggee. yaa ngi si jàmm bu baax. jàmm rek alhamdulilah. jërëjëf waay jërëngeen jëf jërëjëf vraiment du waaw waaw dañu lay bëggee lu bare bare bare wax dëgg yàlla man damay suuf moom moo fekk yi nga xam ne puus naa ko ba pare nag ngeen a bëgguma dindi ah. ko it wala lan <laughs> non non yooyu moom non non non yooyu mm-hmm. ami ami olof nee na mm-hmm. ki la bëgg mooy ki la bañ mooy ki la noppal ki ah loolu wax de sama juumul waaw waaw waaw maanaam bàyyi gi nga bàyyi ni bàyyi ko ci man de mais da nga bi. Mhm. dëgg la ndax ah, ndax dëgg la doon ngeen wax waaw waaye pour moom moom moo njëkkee waaw man ba tey si jàmm njëkk ak teraanga loolu rek dañ bu la maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax weer bii ñu bala moo ñëwaat année prochaine yàlla may la jëkkër ju baax joo bëgg mu bëgg la tam yor la ci barke bu incha allah amin ya rabbil alamin yal na yàlla dégg ngeen dund xam naa loolu xam nga tey yi xam nga tey yi ñaan nit ki mu may la dafa jafe. ba pare àdduna cër la. waaw kon nag bu ñu ba nga may ñun dafa dafa. waaw ñu bëri koo wax ne dafa laa ne maa ma wax lu may def you cannot tell me what to la c'est ça le problème mi ngi noonu. Mm. mais daal maa ngi la ciy ñaanal ci barkeb alquran ci barkeb Muhammadu Rasulullah barkeb Cheikhul Khadim barke Cheikhu oh. Tidiane barke Alhaji Malick barke Baye Niass barke Cheikh Ahmadou Bamba barke Baye Laye barke gaay yàlla yàlla yëpp amiin grand beeg ñun ñi nekk ci kii bi yëpp mais ami. dëgg la weer bii bala moo ñëwaat yàlla nga am jëkkër ju la bëgg nga bëgg ko mu yor la yiir la ngeen sëyee sëyee sëyee am ci ay doom ay Muhammadu Rasulullahi Cheikhul Khadim Baay Ñas gaa yi yàlla la yàlla dégg yàlla la yàlla te yàlla bu leen ci sëydaan mënal dara dara dara dara dara dara dara ngeen sëy ba mu suuri la yàlla na yéex wala nga sëy ba mu suuri la te dara du ñaaw amiin amiin amiin <laughs> barke Cheikhul Khadim waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ñoo ko bokk am na amul solo nañu rafetal waaw nañu àdduna jeex na ami jeex na suba yow xamoo lu ma lay jëriñ wala yow loo may jëriñ. jeex na internet bi rek moo na ba suba mën na noo daje. <clears throat> Mhm. yàlla rek a xam moo tax yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla teg yoonu siraatal mustaqim loolu moo am solo amiin yaa ma lay li ma dolli rek li ma lay dolli nga dolli ma ko rek nu koy dollante sax laawa wax lépp lu ñuy def nañ ci mhm. xalaat suñu digganteeg suñu borom amiin mhm, macha allah amiin loxo ndeyjoor bi den ko njega naa yoo de te yàlla na yéen amiin lépp lu ñu def fii rek dañ koy def dañuy jàkkaarloog suñu borom ba pare bu dul dara dañu xalaat suñu njaboot ëllëg. dëgg it. dañu xalaat suñu njaboot suba dañuy màgg. internet bi nag. internet bi du jeex du jeex. loo fi def xanaa laala bi daa safut laala bi daa safut xanaa yaa ngi yaa ngi ko ñulgaat rek. déedéet sax na man maa bëgg ndox ndox ko baax si yaram waa. waaw loolu moom loolu moom waaw waaw lu mu def rek ëllëg yàlla mu répercuté wu suñuy doom quoi. wax nga dëgg mm-hmm. waaw. waaw ndax am na ñoo xam ne tey ñii def na fi loo xam ne cent ans ci ginnaaw mais tey affaire boobu mi ngi leen topp ba léegi. dëgg la la. waaw mi ngi leen topp ba léegi kon nanuy moytu quoi nanuy moytu nan ñaan suñu borom ñëpp mu sàmm yàlla rek mën a sàmm man ma ne la stress bi la parce que man mi bu ma commencé vidéo yi tey léegi tane na sa waaye moo commencé xees xam na yenn vidéo yu ma def yoo xam ne stress moo ma ko def loo ko bokkutoon doon yëppi taati neen nag wala waxi non dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la yoon la mu nit ma sa saaga ndey te te te te te te te te te koo xam ne la fay def bi di di di waare te ku wax rek mu daggal la saaga ndey du man kenn yàgg naa def vidéo di saaga ndey ci vidéo bi lu yàgg ñëpp xamee nañ ko benn mm, bés nag saaga ma ci ci lu mm. ñàkk fay ma nit ma tëb fayee ko léegi nag su yaay xaayee ma na loolu yàgg na boo yàgg dëgg la non mais saaga rafetul ma nag ba tey waaw ku ma saaga ndey du may fayee ko mm-hmm. waaye xam na yenn vidéo yi ma def yoo xam ne réccu naa ko mooy lu moo moo tax ma ne la stress moo tax nit ñi di ko def mooy dëgg la saaga ndey boobu ak time bu ma nekkee politique nit ñi nekk uh-huh. politique moo tax bi Adama Barrow ñëwee toog xeer nit ñi nekk politique. dëgg la di def vidéo yu bon man tam ma tëb mm-hmm. dugg si damay dimbale Barrow dimbale baro boobu taxoon na ma def vidéo it's not bon bon compared to yeneen vidéo yi nekkutoon vidéo yi saaga ndey tamit. non non dëgg la dëgg la yeneen vidéo yu ndaw yu noo yoo xam ne réccu naa ko. Uh-huh. yeah and yeah xam over the years xat bi xat yi may def vidéo yi daal xam na ay vidéo yoo xam ne def naa ko te réccu naa ko. non but it's not bon bon bon ba ëpp ba réccu naa ko. si si moo tax ma ne ñooñu noonu stress moo tax ñuy def lu ñuy def. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg mm. la. léegi daal man loolu laa lay wax quoi lépp looy defati xalaat xalaatal sa waajur. waaw sa yaay sa yaay teg sa bët loolu gàcce la. waaw. ngay def dara sa yaay sa yaay wala mu dégg ko ci noppam rek loolu loolu gàcce la ci moom. waaw ñu nga suma benn vidéo bu nekk ci kaw nii fi may lekkee ci rek baate bi noonu. fañ ko yót suma yaay boobu rek la ma suma yaay ma sa wax bi fañ ko yót suma yaay won ko ko suma yaay ni ma xam na ku ma jox sa vidéo bi te suma yaay ma dee lay topp TikTok di ma seetaan. xam sa TikTok oh, oh, oh. c'est la am waxee mi noonu bañ ko ko yot moom xaaye xut ma lekk ma sax yoonam néew ci xam na ne man comédienne la waaye. sama <laughs> wax ne ma li nga doon wax ci vidéo bi noonu oytu ko su beneen yoonee mm-hmm, mm-hmm. yi ñoo ko yóbbu sa rek naa fekk yi naa fekk ko yóbbu te moom moo dul yoon naa fekk yi ñoo ko yóbbu sa yaay rek waaw jërëjëf waaw bàyyi ma waaw baal ma bàyyi ma jëm di liggéey yooyu amee amee xoolal sama jeg jaagi bi amee sama jeg jaagi ñëpp say soppe lañ jaajëf jaajëf ñu ngi leen say soppe lañ jërëjëf waay ñii ñëpp <laughs> ñii ñëpp samay jabar lañ ñoom ñëpp maa ngi yor abi samay jabar lañ gis nga leen. jaajëf tawfeex Baye Fall tawfeex. dafay dem andeen nga ma waxal. waaw incha allah ok waaw julli ji mais dinañ di dellu bu soobee yàlla. Ah. incha allah baax na méttiwul ñoom ñëpp dina rafet incha allah. jàppale la jaajëf jaajëf. amiin amiin amiin. thank you so much Souley apprécié naa ko thank you. jërëjëf. Mm. waaw yow ñi nga bëgg mu nuyu leen waa indi ma nuyu leen léegi. ah. yow nga ne ñoom ñëpp ay jabar de. waaw sama jabar. ah. jox ma jigéen ñooñu ma wax leen ne buñ ne di dóor gune yi. buñ la. eh wuy leen wuy leen Aliou.

ngir yàlla bu leen di dóor gune yi dóori dóori hëpp bu leen di dóor waaw xala da nga taw baaxu kan bu dee ci magee fay naqari waaw bu leen ko di def Mm. waaw bu leen leen bu leen leen respecté te di dóor dóor yu na samay jabar mag lañ quoi xaadim wax leen ne bu ñuy dóor gune yi dóor yi soxot yi def Afrique de non non duñu leen dóor xale kenn du leen dóor incha allah ankay danañ leen dóor waaye waxal leen ñu ba ko daw yi soxot yi he Afrique <laughs> non dinañ leen def ndànk incha allah sama jabar grand frère lañ. that's nice man sama jabar ngi Touba am naa jabar. oh macha allah that's mu ngi Touba mais fii moom samay kër grand frère lañ sama kër ay doom yaay quoi mais nag samay loolu lépp doon ko xamee dund bu rafet la ñuy dund dund bu nice. macha allah that's beautiful. wallaay wallaay amuñu benn problème ñun ñëpp macha allah. ngi ñëw. yàlla na yàlla defal jàmm rek xam naa bu déedéet bu nekkee may noppaliku fu ma paree lii xalaatuma ko. yàlla la jàmm sunal. jërëjëf waay. jërëjëf barke Cheikhul Khadim. jërëjëf macha allah jërëjëf naa ko trop ndax yow ak su bi ngeen maa def mhm. moo tax ngeen ñëw di wax ak mhm. man nii ne ma bàyyi lekk yi su fekkoon def leen ma seen mhm. jigéen surtout Souley parce que yow man maa la laaj sax waaye Souley su fekkoon defu ma jigéenam konoon du xam sañ sañu ñëw naan ma ma lay ñaan ko nga ba lekk bi kon nag man ngeen def seen jigéen moo tax ba ma ba ko promise naa leen ne banaa ko te lekk gii di lekk di waxtaan a nit ñi ak comédie ma neex mm. waaye dinaa ko baax yéen ma koy def pour reeloo nit ñi ak fàttali nit ñi cosaan ak comédie waaye danaa ko baax ngir yéen dëgg la jërëjëf kon nag yàlla na la ci yàlla la ci fay gën gi fay amin amin ci yàlla fayee yàlla nga ko yëg amin jërëjëf amin te fay gëm la ci fayee boo ko yëgee yàlla ko bokk ak say mbokk amin jërëjëf amin barki Cheikhul Khadim barki Cheikh Tidiane barki jaay yàlla yëpp amiin thank you so much. jërëjëf merci beaucoup ok Ami naa def. naka. bàyyi nii rek yaa ngi si jàmm naka xale yi. maa ngi nii rek kii naa ko waaye demul jigéen ji. waa ci ñii liñ doon wax laa bëgg a dolli tuuti rek. waa kon liñ wax noonu ne mbiru lekk nga bàyyi ko ndax yow mbiru lekk yi boo koy def. Mm-hmm. danga ko def pour kaf ak ree defoo ko mm-hmm. ngir wane wu defoo ko ngir dara ndax yow dangaa nekk koo xam ne. dangaa amul ñaaw njott ci nit amoo ci nit ñaaw ñaari xel waaw yow la yow dangaa nekk nit koo xam ne ñaawoo njott ci dara daal tiitoo ci dara ragaloo dara ndax dangaa jël lépp bàyyeekook yàlla waaw ndax dangay jàpp ne doomu aadama yi sàkkuñ la ba war laa mënal dara yàlla mu la sàkk donc moom dangay jàpp ne yàlla mi nga xam ne ragal mooy li may wax waaw mooy li ma xam nga kon nit buñ demee ba gémmiñ daje ne bàyyil lii rek bàyyil uh-huh. moo bàyyil bàyyil demee ba kon fi nga nekk ni àdduna ñoo fi daje xëy na nit ñi xam na ñoo xam ne xamoo xam xamuñ la fii rek ngeen lañuy daje ci benn place bi léegi yow da indi sa lekk tekk di waxtaan di kaf naan maa ngi togg lii nii laa koy yaay lii laay lekkee nangam ak nangam di kaf xam nga bu loon kaf bu la neexee nga togg sa kër lekk sa lekk ba suur toog jàpp sa njàmbur waaye yooyu yëpp boo gisee nga koy def pour kafal nit ñi ak bégal nit ñi yow pour bégal nit ñi nga koy indee waaw di fàttali nit ñi cosaan ne nii laa togg ak cere lii laay togg ak cere lii laay togg bu da ngay togg sa cere ba mu neex mhm. waaw da ngay togg sa cere ba mu neex nga def ci liñ ci war a def yëpp nga koy commune di ko wane xam nga démb yaa ngi togg cere di naan cere mbuum de du am yéet waaye man dinaa ko ci def sama yoon nekku ci te dëgg xam nga bu mm. yow sa bopp xam nga ne du ko am waaye danga ko def pour bégal nit ñi pour nit ñi ah, ree ci ak kafi waaw pour nit ñi kaf nga def pour nit ñi ci ak comédie ci nit ñi bu fee nit ñi ree la ci looloo tax waaye yow xam nga li ngay togg baax xam nga ne lu war a am ak lu warta am yenn yi boo ko defee pour nit ñi rek la yes ak pour reeloo nit ñi because man pour reeloo nit ñi la oh, waa bugg naa kii naa eh, sorry eh, mm, eh, yéet bi so mm-hmm. du ma nekk di ko fa def without wax ko nit ñi wala ma bañ ko faa def bi ko nit ñi def mm-hmm. ta togg you know waa dama dee naturel man suma vidéo yi du tax ma da ngay naturel waaye wax nga ko carrément comme ça ko waaye wax naa nit ñi ne kaane bi raxas wax nga ko wax nga lépp mu leer wax nga ko lépp yow leeral nga xam nga man côté boobu rek amina bu dëgg neex ma loolu rek nga nga ma neex ndax yow doo nit koo xam ne nit ku dëgguwul nga déedéet man am pour ma jàpp nit ak a jafe ndax man damaa bëgg dem wax na ne dëggu naa de waaye bëgg naa nit ku dëggu tamit. Mhm. su may ànd ak yow damay ànd ak yow damay ànd ak nit te yàlla tax jàpp nit te yàlla tax nekkul ne mhm. ku nekk laay jëppeelu jàpp la déedéet dafa ñu may jàpp de. ñu may téye tam mhm. dama koo xam dama koo xam ñu may dugalanteel tamit du ñëpp laay dugalanteel dafa am ay nit ñoo xam ne ma leen di koo ba gis seen jikko mu doy ma ma xam ne kii ak jikkoom ak sama jikko li lañ mën a def soog a mhm. dugalante foofu waaye ma def ku ma gis sa dugg la baaxul di soo bokkul ci laay fi may nekk di capa capa capa capa capa fu ne ma dugg fa yéeg déedéet mhm. waaye yow boo gisee may ci xëy na li ngay def neex na ma dama ciy gis sama bopp dama ciy jëlee njariñ maa ngi ciy jàng di am yu muy wecc ci man di am lim may dimbali kon ma dugg ci c'est normal ma dugg ci sa live ndax njariñ laa ciy jëlee su ma ci jëre woon njariñ du ma ci dugg du ma la seetaan wala mm-hmm. ma lay xool romb waaye kon su ma ci gisee ma ciy gis loo xam ne daf may neex loo xam ne daf may dimbali loo xam ne ñu may wécci di ma dimbali ci mm-hmm. côté bu nekk kon nag nii ngay toggee nii dama koy togg sax te saa ma def samay cere yooyu yooyu yëpp dama koy def ndax yi ngay wax ni dafa baax ci yaram léegi léegi laa teg nii kaas kii bi mu nebedaay bi moom mm-hmm. la naat ni ba pare moom laa doon déglu newedaay bi laa teg léegi def ndox mu tàng di ko naan sànq ba léegi maa ko téye nii di naan du jaaxaan te musuma ko naan bu set wala ñaari mm-hmm. fan ñu ne naan ko ak baax mm-hmm. waaw moom laa naan ni léegi toog na xaaral ma dugg tuuti te musuma koo naan yow yaa tax ma ciy dugg di ko naan ndax xam naa ne njariñ la te li nga wax dëgg la ndax faj faju cosaan yi ñuy bàyyee garab yi suñu reen yi ak suñu xob yi daf ñuy dimbali ci côté bu baree bari sax bu buñ ko xamee nuñ koy jëlee dafa baax. ko mu ngi suma suma laal suma suma suma ron laal di si box boobu noonu si boori fi may tëddee. ñu naan baax na waaw baax na Ami maa ngi lay daal yàlla gën a jàppale. yàlla gën a jàppale daal. amiin dox yàlla musal la muccal la yàlla rek mooy musal nit mooy sàmm nit. Mm-hmm. yàlla moom mooy sàmm nit. dëgg it. te mm-hmm. yàlla yàlla bay sa tool na yàlla yàlla bay sa ndax man su ma neexoon tey for exemple. Mm-hmm. konoon góor ñooñ dugg. dalee ko ci mm-hmm. suley sax. Mm-hmm. su ma neexoon ba suley waxee rek laa koy dindi. man gis na nit ñu def tiktok fii. te seen ñàkk kersa gi man may tiit. nit koo ne fa dugg. di la wax ne nangam bii lu tax nga wax ko. wala nangam bii rek nga rek nga dindi borom. naan ko yow nangamal ndeyam yaa may wax lu may def yow gannaaw ngay ngay critiquer ngay wax génnal te kat nit ñoo ñoo tax nga def live bi pour nit ñi seetaan la. dëgg la waaye yaa ngi leen di def men ni xaj. xaj kay lan lañ la ne lii lii nangam déglu woo ko sax rek dindi nit soo man sant naa yàlla ci suma bopp it parce que nit ma yàlla def ne man. Mm. du ma dee rëy nit sa rëy mooy sa ennemi. man mboolem nu ma dugg ci àddina penda gu ne gu ndaw sax man na ma see dindi man boo ma xamul rek nga maa xamul. dëgg la. bu ma gis nii foog ne du may déglu dama dee déglu de waaye nag ak ki mm. nitam laay déglu nit ñoo xam ne dañ ñëw ak man si njëkk ak teraanga dama leen dee déglu mm-hmm. Mm-hmm. waaye nit koo xam ne moom ci boppam fa soxot ta xamadi wala jof di di wax loo xam ne baaxut mu dima war ne lii lii fa war a xam maanaam góor yeneen góor wala yeneen nit ñi nga xam ne dañ jël yi nga xam ne fay métital nit si communauté bi waaw di la forcé ci dara daal di la forcé nga nangu loolu comme ça yeneen góor yi xam ne mm. yow ne say la jigéen su xeppoo sa jëkk sa jëkkër xam di am di njaaloo ka def lu bon sa nga war a sotab te muñ mm-hmm. ma wax wax nga të façon boobu de mën naa laa dindi suma vidéo bi soo oytuwul mhm. parce que loolu fa jéggi dayo te yow mi koy wax yaa tay ne loolu baaxul ngaa feebar te soxla dëgg la waaye nit ku ñëw nii rek naan ma ami nangam dama dee déglu su fekkee ne yaa ngi def sa bopp nit te du ne lu may def si vidéo bi rek yow waroo maa wax ne ba parce que man vidéo bi yow yaa tax ma di ko def loolu mooy dëgg gi dëgg la dëgg la ni ñi yow boo doo si xeet nga yow yaa tax ma di ko def pour yow nga di ko seetaan di ko like di ko share Mm-hmm. kon yow war naa laa déglu su fekkee li nga may wax loo xam ne la man maa ngi koy des si vidéo yi te neexut la wala jaaxle mm. nga ci wala foog nga ne nangam war naa laa mm-hmm. mën a déglu at least boob nga wax waaye nit ki tàmbalee wax rek nga dindi ko loolu moom baaxul moom loolu dama dégg ñi di ko def di def vidéo boo xam ne sax baaxul yaa wax wax yu bon nit nit commencé rek ne la woon nangam balaa muy daane rek nga dindi ko xaaral mu dindi la sax boole koog saaga ko baaxul gis naa ko saaga yi sax war nañ koo bàyyi ndax di saaga nit ñi ci tiktok war nañ koo bàyyi am man mm. saaga yi sax laa gën a raga toog xool nit bi noonu lay mel xam dañ ko war a bàyyi ndax mooy du yomb war a ba duñ ko ba mm. nit ñi fa ñuy saaga mm. seen sax ci ker mango yeeg ker kaas yaay Afrique yow doo ko yëg waaw loolu sa ndey de eh, bi nga teg fii nag bu dee Gambien la yow damaa nangam sa nangam sa ndey wax tur wi dëgg la saaga ndey rek nangam ndeyam bi surtout jigéen ñi Gambien ñu fi xamadi ka dox suñuy saaga seen doomi doomi nangam bi ndeyam bu nga doon mais nit dof bu naan sàngara parce que yow gune gi ngay saaga ndey noonu ëllëg su meroon moom it ba ne la yaay yow doomi nangam ndeyam est-ce que dana la neex du la neex soo nit ñi suñ buggee nit ñi ba saaga ñoom ci seen bopp ñooy ba saaga ci ker mango yi ñoom ci seen bopp ak néeg biir néeg bi ker mango yi fa ñuy def seen bopp nit ñoo koy jàngal gune yi foofu foofu la ko gune yi jàngee ba ñëw di ko def. foofu lañ koy jàngee ba màggaaleeg moom. Mm-hmm. saaga yi ci biir kër yi lañ koy def moo tax man saaga yi du ma koy faale moo tax saaga yi du ma ciy wax nga maa gi ma di ci wax man ku ma saaga ma koy bët rek bu la borom te ne parce que nga maa gi ma naan ba leen saaga. <laughs> man community bi dafa am seen yenn jikko yoo xam ne du ma koy wax fa jikko ja jógee laay wax. xamoo loolu. yaa ci jàngee waaye jikko ja joge lay wax parce que jikko ji si boppam boo dee ko suba yi du du dëñ feeg mu ngay jógee fa muy jógee mm-hmm. jikko ji fa mel ni bu bënd ba ndox may tuur dëgg la xamul looy def ba ndox ma fatt feeg demoo sa ron ba gas paay ba ba fatt ba fatt ko foofu dëgg la de boo ko fattu fi mu bënn waaw moo tax ma dee wax ñun góor ñi nga xam ne ñooy sonnal jigéen ji ak bañ a nekk góor gu baax ba tax jigéen ji di stress bay saaga ndey am na jigéen ñoo xam ne dafay xamadi rek te duwadi nit bu góor ga baaxee it fay xamadi. waa jigéen ñu bon am na mën a jur doom. Mm-hmm. def rek ñu saaga ko ndey xëj xëj ko wekk ko bi bax ko. saaga saaga baaxu mun xaw ma ndax lu jigéen ñooy benn. di saaga di saaga muy saaga ndey sax dafa baaxul di jàkkaarloo sa doom sa yenn saaga yëpp baaxul. sa doom sa waroon nekk di ko daggal ay saaga ay saaga yu ñaaw ak lu nekk. loolu baaxul ndax xale la ndax mun na génn dem wax ko nit day jàpp ne loolu nga ko wax noonu ku ne war nga ko mën a wax sa morom. mën na gis dem wax ko nit dañuy saag waaw. nangam waaw. muy fii xale yi dafa am xale yoo xam ne dañuy ànd ami foo ba ci yàgg nga dégg kenn gi wax saaga ndey yoo xam ne ami man mii nekk mag ñemewu ma koo wax. ci mag xale ndaw ami daggal la saaga di daggante ay saaga yoo xam ne. ci mag ñi lañ ko di ko wax dëkkandoor yu jubóowul xuloo jeeg gi. Mm. ku nekk tàccu. damay nangam sa nangam mi ndey mel ni ko dof foog ne yaa jàmbaar yaa ngi yàq sa doom yi yàq doom yi yëpp ngaa dof. Mm-hmm. waaw surtout kuy tëb njëkk ñi dee njëkk a yëpp dof yu xenu seen dàll lañ te jaru nga di leen tontu. Mm, soo leen di tontu saaga tontu leen ci tontu yu nit surtout bu la nit ñi dégg nga jàngal nit ñooñu ne yow yaay mm. nit ki te ñoom ni war a def dëgg la waaw waaye soo tëbee saagaxaat ko ba raw ko yaag mooma yam te yéen ñaar ñëpp yaag mooma yam waaw ndax moom du nit bay saaga yow nga nga topp nga fayu ko nga ñàkk a mm. nekk nit comme moom rek communauté bi gune seetaan ngeen di woon gune yi ne àddina nii la su la nit saaga ni nga war a def war nañoo xoolaat seen bopp bu baax de surtout yenn mag ñi ko defee fay naqadee dindi bëgg a def ami maa ngi lay bàyyi nga noppaleku waaw mais ñoo dem sax mais ko bi laay. waaw parce que mais ñoo julli ji te noppaliku ci sax. waaw dëgg la kay. suba ak jàmm danga war a dem liggéey fële si liggéey fële. thank you so much. suba ak jàmm du ngeen ma gis may dem liggéey fële. ah ko di mu ngoog fàtte naa ko weeda bu bon bee tax ñu cancel ko. te fan yi Angleterre weeda bi fa bon ba nga xane. fa xam liggéey bu xeex bu ma tàmbali waaye far ma xam corona moo tax manuma woon a dem booba tey fu ne corona bi wéet ma war a dem li fi ñu dugg sama bët bi waaye. wuy sama bët bi fa lifin bi fa si dugg koy danaa dee mékob bi ma ko war a ba màgga taxaay daal ma te mékob bi fay metti boo koy dindi lifin bi dugg sa bët <clears throat> nu mu tudd corona bile ba mu méttee ba pare ñu ne noon la ma war a tàmbali liggéey bile dimanche bile ma kontaan ba bugg a dee far liggéey ba ñu ñu ñu cancel ko ngir ngir ngalaw li Angleterre ngalaw loo xam ne moo fi ne te ñu ne du jeex ba semaine bi yëpp ndax xaw xaw ma kañ xam nga tubaab yi fa ñu seet weer bi nu muy mel fii ba ay fan wala bi ba semaine bi yëpp nu weer bi war a mel fañ koy jàng seet ko di ko wax soo ñu ne weer bi baaxagul moo tax gars yi cancel ko ñu ne dimanche weer bi bon lay xam hmm. moo tax gars yi cancel ko gisuloon bi vidéo bu ma pose léegi nii garab yi daanoo oto yi xalangu weer bi noonu la nekk di mel Angleterre temps yi de waaw fi nekk ni moo tax na fi mu ne nii du ma mën a tee dem liggéey dimanche fañ ma email ne ma ñëwal bañ ne noonu ma ne ma ñëwal bañ ne noonu la ñu emailaat ma cancel ko sama de parce que man maa bëggoon a dem liggéey parce que man maa ni kaali boobu maa ngi war a order yére yu xees pour yére yi may jaay ci julli gi waaye nga ko parce que julli gi léegi tey mu ñëw benn weer rek a ci des weer koor ñëw maa ngay dem xendu leen jàmm vidéo bi danaa ko post sa YouTube channel ba waaye fi nga xam ne fa waxee xolof foofu rek lay post fi nga xam ne fa laa waxee àngale <clears throat> yëpp danaa ko dindi def ko vidéo boppam incha allah pour si ngeen koy seetaan bu leen gis àngale yéen ñi déggul àngale jërë ngeen jëf tey li ngeen def nii ñëw xaaye ma li tax na ma gën a xam ne xam naa ay mbokk ci ci ci ci ci vidéo yi tax na ma gën a jàpp vidéo yii xamoo loolu man Ami Diop daf laa du may xalaatee ni ñu bari de parce que man lu ma foog mooy soo gisee ñun ñuy sonn si àdduna yu bëri yuñ war a jàngee yu bëri yuñ war a use motiver suñ bopp fañ koy sànni ignore ko mbala ñu def ko muy lu bon mooy li ma dee wax si vidéo yi rek ñun lu baax lu ne ñu def ko lu bon jël lu bon li def ko lu baax maanaam ñi buñ duggee tey kii bu mu duggee sule mënoon naa a jël Souley li mu wax def ko négatif génnee Souley bloqué ko te fekk Souley du ma xam sax ne daf ma bugg konoon Souley danaa ko gàcceel te Souley mu ngi nii ne moom daf ma bugg yàgg maa seetaan xaw ma si dara waaye bi ko Souley ñëw na rek ne maa bugg nga bàyyi lekk mi rek ma dindi ko ñàkkee ko kersa ndeysaan te fekk man su ma dégloo Souley for exemple te ba lekk mi loolu du ma wàññi dara ba tey dinaa def vidéo te ba tey ñu ma bugg danañ ma seetaan te duur sulee rek moo ma xaayee lu li ndax fii ñun ñu fiy def lu bon yëpp ci vidéo wala di def loo xam ne communauté bi fañ ko buggut su fekkee ñun fañ foog ne duur lu bon sax ne foog naa ne lekk bi mënta yàq communauté bi kamoon waaye su dee lu bon ngay def lu communauté bi buggut ñu bëri ñoo la ko dee xaayee du nekk kenn nit yow yaa dee dëgër bopp di wax ñëpp non non non non mais ni ko dof tax lëg boo deexoon nit ñoo ñoo lay suul ñoo lay ñaanal nit ñaak nit ñee bokk sa bopp moom moo kenn tey ngaa wét moo tax ngay law lawi naan man suma àdduna la suma internet la doo war li may def xaw ngaa wét yal na la yàlla may fan wu gudd xëllëg tey man bu ma neexoon ma ne nit ñi su ma yoon néew ci maa tey balaa xëllëg bu neexoon yàlla ndattu dal ma ba ba ba nit ñooñu war maa dimbale xëllëg bu ko neexoon yàlla ma dee ñu jël suma niw bi ne ko fàtte ci internet bi ne Amie Jobe mi pour ñu yóbbu néewam Gambie ah nit ñi koy def bu seen maa leen gën waaye loolu mooy dëgg loolu tey nit ñi ma waxoon ne leen tukku leen ñoom ñooy fàttaliku ne ay Ami Jóob bu muy dund dee <coughs> nangam laa ko laa ko doon wax mu mu mu mu lànk gisoo fi ne àdduna ndeysaan yàlla waaw ah, xaaral ma dimbale ko rek donate pour niwam bi dem def na si moom mu donate ndax fii nit fay dee xamuñ luñ ko donate <coughs> tubaab ya lakk niw ba ngir xamul xaalis bu delloo niw ba xam de mbala ëllëg tey mën ngaa feebar nga xam xarit xarit ba bu booy def dara xarit ba di la waxal nga di ko jànni ne ko I don't care te xarit bu bu ëllëg mën ngaa feebar tëdd wala yàlla tere nga ne ci ndox ne ci uh, gàllankoor moo lay dimbale waaye tey muy wax nga naan ko I don't care di ko di ko sànni muy mbokk muy xarit ñun nañ xam ne suñ jikkoy xamadi ji instead of ñu seet ni kala muy wax ñu wax ne ah kii day wax ne dëgg wala kii day ok nangama nangam moo tax muy wax lii ok xaaral ma seet lu muy wax for exemple man ba tey foog naa ne lekk mii nii su ma continuer di ko def dara du ma jot te lekk mi nekkul di yàq communauté bi waaye ñii li ñuy wax ñoom bi ko ñoom gëm nañ ne bët baaxul te bugg nañ ma suñ sañoon du nekk di jaaxle buñ ma gisee def na si man ma ne ah wax nañ dëgg xaaral ma bàyyi ko rek ndax seen xel daal mbala ma toog di defanteeg ñoom ràng ne ma koy def bàyyi foos ah ngay génn ëllëg si bi bu ma dara dalee ñu ne waxoon nañ ko ami ne kon na ko ba mbala jox saa wuñ ma gisee di jaaxle saa wuñ ma gisee may lekk ñu ne de ami de li muy def nii xuurut te ñun suñu sañoon du ko def bët baaxut di jaaxle foog ne may dee wala may dof balaa caag nga ba ko rek soo ko bayee du la wàññi dara su doon nga si xam xaalis sax boo ko bayee du la wàññi dara danga xam leneen loolu mooy dëgg gi waaye gi nga nit ñun fañ dëgër bopp te instead of nit ki di ñu waxal dara ñu seet lam ñuy wax déglu ko def ko muy nit wecci déedéet fañ koy jël rek altu ko sànni ko gëdd ko xew xooxee ko xiita xooxee ko ennemi surtout bu dee suñ mbokk la fañ koy def ennemi daw ci Pérou lii mooy suñ problème moo tax ñun mënuñoo juboo mënuñoo ne benn mhm. ba pare fañ xamee yeneen jikko yoo xam ne moo si moo si raxit waaye bii main problème bi la ñun nit ku ñuul te loolu xoolu xadi xante moo tax ñu mel ko fañ xoolu xadi xante moo tax ñu nit wax ñu foog fa ñu bañ instead of ñu déglu ko understand li muy wax you see what a mean but anyway man kontaan naa ne ñoo ngeen wax ma loolu because loolu mooy ne surtout yow Souley yow mi ko wax loolu mooy ne nga maa gisee comme sa sister te man nit ñi ma yàgga seetaan di wax ne maa xamadi te bon tey danañ fecc ci seen gàcce seen gàcce bopp fecc leen ko mbaa ñu robi leen man xamadi wu ma ta bon de xaajuma xaaja waaja xamadita bon maa sonn ci yenn non service bi communauté bi di def loolu dëgg la sonn ci yenn jikko yi may teg ak di ko teg yeneen ni ñi dëgg la waaye xamadita bon non te yenn yi borom bu ñëwee ne ma nangu ko ñëw ci suma vidéo yi ne ma nangul lu bon lii du ma ko nangu se boo ngeen wooyee ma ko nangu waaye xamadi ma ta bon de gënuma nit ñi yit nag waaye nit fa xuude hmm, am naa yeneen jikko yoo xam ne ñu no ñeneen nit ñi amuñ ko ñeneen nit ñi di seen bot di maa ngay dem jërë ngeen ba beneen yoon suba jàmm du ma ne di ñëwaat guddee ka def yoon may dem jëndi sama këpp bile te julli ji tan tan tan relax mhm. jërë ngeen jëf maa ngay dem xeen du leen jàmm danaa gën a ñëwaat di def vidéo yu baax di gën a dimbale communauté bi di gën a jàng xam na bug bu bu ma jënd su ma ko riidee su ma fa jëlee ay knowledge yu xees danaa ñëw wax leen ko danaa gën a ñëw di jàngal communauté bi yu baax yi ma xam te gën a yar suma bopp te gën a ci communauté bi le du ma give up ngir ngeen ma jëlee def ma seen sister loolu motivé na ma mhm. jërëjëf jëf yal na yàlla may jàmm yàlla musal ñu ci seytaane musal ñu ci ndok musal ci fan wu gàtt musal ñu ci deegu ñaaw hmm. danaa post vidéo bi YouTube waaye danaa dagg fi ma doon lekkee post fi fi fi fi fi su lay duggee noonu danaa ko post you fi ma lekkee pare daal danaa ko post incha allah te YouTube ba ko fi mu ne nii nga seetaani ko maa ngay dem kenn du leen jàmm àdduna du dara nañ leen ba réew mi ñun ñaame ay vidéo neex na nga taxal sa internet di baf bafi di jaay ne maa fi maa fi maa maa maa fi firéeku lu ma neex def waaye nit ñi ñëw duur ñoom ñëpp ñooy suñu ennemi nit ñi ñëw di ñu xaaye yenn jikko yi nañ leen leen déglu ngir yàlla mhm. parce que ñoom ñooy wëcc li ñuy def di ñu déglu te ñun ñu ne duñ leen déglu mukk ba abada ku wax rek ñu ne acca tukku it's not good mhm. sant naa yàlla ci tey ne déglu naa lii you know tas naa ko ba incha allah maa ngi dem allo sista suma maa ngi dem du jeex di fii lay fanaan maa suma yaay leen bëgg waxtaan suma waxtaan du jeex <laughs> xaaral dem faam fanaan de lay lay laa te man may dem kon su ngeen ñëwee bu leen yàgg ngir yàlla fii lay fanaan waa foloo naa la baak borom bu bom faal mii yow nga may foloo foloo naa la baak keneen kii de xaw ma lan la ak góor gu toog so mbaxana la de yaama ndax jigéen la yow nga may foloo foloo naa la baax waa ma jël la yow ngir yàlla bu leen yàgg may dem mu ngoog jëlul leen sax dagg na leen déedéet yaama moom foog naa mu ngi ñëw de waaw yaama dikk na allo may dem dimbale leen ma ngir yàlla maa sonn booba tey maa danaa nelaw ci digg internet bi de far ñu far ñu noppal ma dem mu ngi dagg jéggal leen ma jël naa leen mu dagg mu ngoog maa ngay dem jërëgéen jëf ba beneen yow incha allah <laughs> baay jërëgéen jëf